wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwan wa tamkin bokki M-Media Group Nourou Darayni bokki taalibe bokki jullit yi bu nu sante su mboom subhanahu wa taala julli ci yonentam bu tedd ba sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain dellu santa Seexna al Xadim eh, alayhi akbaru ridwanullahi al baaxi al di ñaan su mawlana tabaraka wa taala fayal nu noo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñ borom yàggal ko fi lool ba lim yéeni liggéeyal lislaam ak njabootuk lislaam mu àggale ko fu kawe njortam ci barke alquranul karim euh, dellu santa suñ borom subhanahu wa taala bim nu may ñu dikkaat ci bi fas yéene dikkaat ak ci sunu émission bi di zaadu nisaa il muslimaati li nasihati al muminina wal muminaati di émission yóbbalu soxna yi ñu di ko amale fii ci ëttub M Media Group Nourou Darayni mu mel ni jataay la boo xam ne jataayu fàttalante la waaye jataayu laayanti biir la di ñaan suñ borom subhanahu wa la defal nu tawfiix saahiran wa baatinan ci bar seexan mel ni émission boo xam ne sunu bokki soxna yi lan ko waaye yemul rekk ci soxna yi mboolem góor yàlla yi ku ci suñ boom subhanahu wa na mu sag jariñu mën nga cee jariñu insha allah taala jataay yi nga xam ne moo passé noo ngi woon ak yéen ci yóbbalu soxna euh, soxna Penda Diop téereb Sëriñ tubaab bi nga xam ne daf ko tudd daf ko bind tudd ko wasiyatu soxna Penda Diop mu mel ni wasiya la boo xam ne bu dëppoo ak li nga xam ne moom la ñuy waxtaane ci jataay bii la te mooy yóbbalu soxna yi Sëriñ Tuubaa bindoon ab dénkaane bind ko doon ci dénk soxna Penda Diop tegal ko ci ay tomb yu am am solo yoo xam ne képp koo xam ne teg nga ci sab tànk ci jëfee la la nga xam ne moom lay digle waaye bañ a teg sab tànk wala nga teggi sab tànk ci tere la nga xam ne mooy safaanu la muy digle mën nga am muccuk àddina ak muccuk àllaaxira mu mel ni noo ngi noo ngi ci woon ci jël benn par benn yi nga xam ne moom la Serigne Touba tudd di ko dénk soxna Penda Diop ñëwoon nañ ci nam ko dénkaane ca muñ ga ak ya nga xam ne moo ci aju yépp noo ngi toll woon nag ci fi mu koy wax ne ko ne ko duumi alal xumuuli wa tasatturi wal tuxfidi sawtaki dëhëran tushkari ne ko bokk na ci li ma lay dénk yow Penda Diop mooy ngay nëbbutu ngay nëbbutu ngay suufeel sa kàddu kon suñu borom subhanahu wa taala dana la sant kon loolu dafa bokk ci li nga xam ne moom la jigéen war a sàlloo bàyyi ci xel bu baax a baax te mooy li ñuy tudde alxumul te mooy di nëbbutu waaye te fexe di géem ci kanam ay jàmbur yoo xam ne ay jàmbur lañ ci ñoom nga xam ne daf liina a daf leen a loolu nag mu mu mu ñu war cee bàyyi xel lool rawat na sunu jamono ji nga xam ne ci lan toll nen ko waxeen kere li ëpp ci jigéen ñi li nu gën a bëgg mooy mooy siiw li nu gën a bëgg mooy feeñ li gën a bëgg mooy génn taxawaalu te dëgg dëgg taxawaay ba ittee ittee itte joo xam ne jofar la taxut ñuy wax mu mel ni jigéen baaxoo di génn ci génnin woo xam ne lislaam gërëmu ko wala mu yëkkati kàddoom ci yëkkatiin woo xam ne lislaam gërëmu ko ni nga xam ne noon la ko suñu borom subhanahu wa taala dénkoon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ci waa këram wax ko ne ko yaa nisa annabi lastunna ka ahadin min annisaai in ittaqaytunna fala tadana bilxawli fa yatmaa allazi fi xalbihi maradun waxul na xawlan maarufan wax wax jigéeni yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko yow ji yéen yéen bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne bokkul ak benn bokkuleen ak benn jigéen ci jigéen ñi bokkuleen ak benn jigéen ci jigéen ñi in ittaqaytunna fala tadana bil xawle fa yatmaa allasi fi xalbihi maradun wa qulna xawlan maarufan waaye waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil ula wa aqimna salaata wa atina zakata balaa ya jeex mel ni alquran daa wax daa wax soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bokkuleen ak benn jigéen ci jigéen ñi kon li leen war mooy nanga nga xamee ne noonu la ñenn jigéen ñi di melokaanoo ci seenu génn ak seenug waxin ak seenug colin loolu waru loolu nag danga ko dégg ci jigéen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye day roogalaat ba ci jigéeni jullit ñëpp ni nga waxewoon ni mu waxewoon ne yaa ayyuhan nabiyyu qul li aswaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabibihinna daalika ay an yu'rafna falaa yuzayna nga xam ne dénkaani boobu dafa commencé ci euh, waa kër yonent bi waaye roogalaat ba ci mbooleem jigéeni jullit ñi noonu la dinkaani bii di rogalaate ba ci ci waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ak ci mbooleem jigéeni jullit ñi na mu dig leen euh, soxna yonent bi ne ko na ngeen xam ne bokku leen ak benn jigéen ci jigéeni ci jigéeni ci jigéen ñi jigéeni jullit bi tam moom noonu la war xam ne bokkut ak benn jigéen boo xam ne dundut lislaam wala moom bokkut ci jigéeni lislaam yi ci sàmm aw waxinam sàmm aw doxinam sàmm aw coliinam ak la ko la ci aju lépp ak saay bu jógee di dem la tax mu jóg loolu lépp jigéen jullit ñi daf ko war a sàmm xam ne yemu ca ak ki nga xam ne lislaam tënk ko wax ko ne ko bu ngeen di wax bu leen di neexal seen kàddu bu ngeen di wax ci kanam jàmbur boo xam ne jàmbur bu bu góor la bu leen di neexal seen kàddu sañ ngeen a wax ci moom nag waaye nag bu ngeen di wax na ngeen suufeel seen kàddu te bañ koo neexal fala tadana bil xawli fayatmaa allasi fi xalbihi maradun sañ ngeen a wax nag waaye nag waxul na xawlan maarufan su ngeen di wax ci kanam ñoo xam ne ay jàmbur yoo ay jàmbur la na ngeen di bu leen di neexal seen kàddu bu seen kàddu te it bu leen koy neexal ndax mën na indi leneen ci ci ci seen diggante ak ñoom kon jigéen euh, jullit bu jigéen lool loolu lu war a xam la dellu wax li ne leen waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula na ngeen di toog seen kër su ngeen amul benn soxla bu far boo xam ne bu farata la bu ngeen di doxi na ngeen toog seen kër na fi buyutikunna na tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula bu leen génn ngir ngir di puukarewu wala ngir di wanewu ni nga xam ne noonu la ko jigéen ña daan defe lu jëkk lislaam di ñëw nga xam ne bu ndaa génn dañ daa génn ngir feeñal seen taar ci seenu waxin ak seenu doxin nga xam ne ñooñu lislaam tënku leen kon ginnaaw bu lislaam dikkee nag tënk jigéen wax ko ne ko jigéen yow booy génn bu fekkee ne amoo benn soxla bu far boo xam ne moo la tax di génn yow sañoo génn waaye nag bu fekkee am na ba ngay génn ak moom dañ lay sartal yii su mënta am nagatoog sa kër mooy su mënta su mënta dem ba ñàkk ba ngay génn naga sol loo xam ne lu gudd la naga sol loo xam ne lu yaatu la nanga sol loo xam ne lu fatt la waaye nag si loolu mënta am rek nanga sa kër te it booy génn itam li lay yëkkati na doon loo xam ne lu mënta ñàkk la te bu jeexee nga dal nga dal di delluwaat sa kër toog waaye su fekkee da génn te mënoo sàmmonteeg sa saw colin ak saw waxin ak la tax lala tax la war a tax jigéen jullit bi di génn su boobaa yow la war ci mooy waxar na fi buyati na kon loolu mooy li ci war ne leen su fekkee ne génn génn mënta ñàkk ba nga xam ne génn ngeen saay bu ngeen génnee ak sax bu ngeen toogee seen seen kër mooyam waxtu julli jote rek na ngeen tegale seen lépp te daldi joxe waxtu suñu borom subhanahu wa taala wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasulahu su waxtu julli jotee na ngeen taxawal julli waaye bu ngeen amee alal joo xam ne azaka war na ca mooy nisaab ba war na ci xaalis waaye am ngeen am at mi mat azaka joo ne alal joo ne asaka war na ca bu ngeen ko amee ni ko góor ñi di génnee wala ni ko jullit ñi di génne na ngeen ko génne noonee kon na ngeen di taxawal julli na ngeen di génne asaka waaye tam na ngeen di topp yàlla topp tam ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te alquran waxoon na ci beneen barab wa man a ilaha wa rasuluhu faqad faasa fawsan azima koo xam ne topp na yàlla topp yunt bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy texe texe gi gën a kon mbokk yi loolu lenn la ci lin war a xam ci ne melokaanu jigéen nii la war a mel kon ni nga xam ne noonu la ko suñu borom subhanahu wa taala digaleen diga diga digale woon euh, soxna yonent bi sallallahu alayhi wa boo ko xëccoon ba ci sunu jamonoy tey jii nga toll da wax ne yéen jigéeni jullit ñi na ngeen xam ne bokkulee nag jigéen ñi nga xam ne nekkuñu ay jullit nga xam ne lislaam tënku leen ni nga xamee ne lislaam dafa tënk jullit bi du lum neex wax lum neex euh, sol fu fu ko neex dem déedéet dafa tënk jullit bi nekku ko bàyyi ko mu nekk ko kon yéen jigéeni jullit ñi na ngeen euh, xam ne yéemu leen ak mbooleem jigéen ñëpp ndax am na ci jigéen ñoo xam ne lislaam tënku leen lislaam tënk leen sax danoo am dana am liberté gu toll ni ñoom lu leen neex wax lu leen neex def fu leen neex dem lu leen neex sol ak la nga xam ne moo ci aju waaye yéen yéen jigéen jullit ñi nga xam ne nangu ngeen ngir lislaam tënk leen na ngeen xam loolu waaye itam bu ngeen di yëkkati seen kàddu ci ay jàmbur yoo xam ne jàmbur jigéen lan bu ngeen ay jàmbur yu góor la bu ngeen nekkee ci ay jàmbur yu góor yéen jigéen ñi jullit ñi bu ngeen di wax na ngeen suufeel seen kàddu te it bu leen di neexal seen kàddu yi na ngeen koy wàcce sañ ngeen wax nag ndax waxul na xawlan maarufa waaye nag bu ngeen di wax li ngeen di wax na doon loo xam ne euh, njëkk rek lay jur du jur fitna du jur fitna ci benn jàmbur boo xam ne jàmbur bu góor la waaye itam su fekkee ne amuleen jenn aajo yéen jigéen ñi jullit ñi aajo joo xam ne aajo ju far la ju mënta ñàkk na ngeen toog seen kër na ngeen toog seen kër su fekkee ne aaja la joo xam ne aaja ju mënta ñàkk nag na ngeen génn te bu ngeen génn na ngeen sàmmonte ak yii mooy sàmmonte nag col gi ci yaraax gi mu bañ a yaraax waaye mu bañ a xat waaye mu bañ a gàtt su loolee mënta am nag na ngeen toog seen kër su ngeen toogee seen kër itam wala ngeen génn ngir soxna soo soxla soo xam ne soxla su itteewoo su itteel la yéen jigéeni jullit ñi say bu waxtu julli jotee te ngeen mën a julli bu dee jigéen ñi nga xam ne toll nañ ci waxtu ngeen mën a julli su booba lépp lu ngeen jàppan li ngeen ko bàyyi te joxe waxtu suñ boom subhanahu wa taala te it bu ngeen amee asaka yéen jigéen ñi jullit ñi na ngeen xam ne asaka war na ci bu ngeen amee alal ni ngeen xam ne asaka war na ci fekkee ne lay tax ñu génn ci alal am ñu génn ci asaka am na ci loolu lu jara bàyyi xel la ci jigéen ñi nga xam ne mooy jigéen ñi jullit ñi kon mbokk yi loolu mooy li ñuy digg ci li Sëriñ dénk soxna Penda Jóob ne ko duumi alal xumuuli na nanga sax ci di nëbbutu nanga sax ci di toog sa kër bañ a génn lu nu da am soxla boo xam ne soxla bu mënta ñàkk la bu loolu lépp amul nag kon duum yi alal xumuuli na nga sax ci di nëbbutu te mooy toog sa kër waxu nañ leen ne tabarruj ndax tabarruj mooy mooy mooy mooy ay bu nu jàng léegi euh, tabarruj boroom xam-xam yi wax nañ ne jëpp jigéen joo xam ne dangay ngay génn te sàmmontewoo ak ni lislaam digale jigéen mu génn ni euh, ci la tax muy génn digg digg ndax farata la wala du farata wala la tax mu wala bu fekkee ne farata farata moo tax muy génn la muy na muy génne ndax sàmmoonte na ak ñoom ca wàll col ak ca wàllu waxin wa loolu lépp bu amut ne na génn bu jigéen génn rek suba day dugg ci atabarruj kon jigéen bu génnee ci soxla boo xam ne soxla bu mën bu mën a ñàkk la walla mu génn ci melokaan woo xam ne lislaam gërëmu ko walla mu yëkkati kàddoom ci yëkkatin woo xam ne lislaam gërëmu ko ne na kooku day dugg ci atabarruj waxoon nañ ne atabarruj bokk na ci eh, mooy yàlla ni nga xam ne noonu la ko borom xam-xam yi waxee xaaj ko ay xaaj yu bare bare ne bokk na ci tabarruj daf cee bokk nag at tabarruj mooy jigéen ji nga xam ne day day génn te génn yu muy génn lépp eh, jubluwaayu génn ba ak eh, jëmmi moom jigéen ji génn ci aw melokaanam lépp lislaam gërëmu ko su boobaa kooku day day dugg ci atabarruj te waxoon na eh, wala tabarraj na tabarrujal jaahiliyatil ula comme ni nga xam ne noonu la ko jigéen ñi daan defe lu jëkk lislaam di ñëw nga xam ne daawunu sàmmonte seeni génn mu ni génn itam daawunu sàmmonte seeni col ci feeñal seeni taar ci jàmbur yu góor yi ne dëgg dëgg mooy jigéen ji nga xam ne day génn di feeñal ab taaram ci ñoo xam ne ay jàmbur yu góor lañu am nag bari na suñu jamono ji lool nga xam ne génn gi ngay génn dara warulu ko génn gu mën a ñàkk la ndax doon génn farata ba pare ngay génn itam na wax na lislaam wax jigéen melokaanoo na yow melokaanoo woo noona loolu nag bari na lool kon jigéen ñi nga xam ne dañuy dugg ci atabarruj te tabarruj nekk bàkkaar boo xam ne bàkkaaru mooy yàlla waaye mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bari na lool moo tax lenn ci waroom xam-xam yi bokk na ci bi xaaj bi ni wax xaaj yi nga xam ne Euh, bi ñuy wax génn yi nga xam ne jigéen dana ko génn te génn yépp nekk ay mooy yàlla te ñu dugal ko ci biir atabar atabarruj bokk na jeneen ba ci njëkk mooy jigéen ji génn te génn ga lépp nekk am mooy yàlla mooy yàlla génn gi mi génn te génn ga nekk am mooy yàlla ci moom nga xam ne la gënal ci moom mooy mu toog ci këram ba ñu génn wax nañ ko léegi mooy ki génn te ajo aajo ju far taxul génn wala bu aaju ji far eh, col gu baax goo xam ne moo tax mu war a génn wala bu génn itam aw waxinam defarut aw waxinam ci bañ ci fitnal kenn kooku day dugg ci tabarruj wax ne tabarruj daa bokk ci mooy yàlla te koo xam ne da ngaa mooy yàlla mooy yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam dana kooke man yaasi laaha wa rasuluhu fa inna lahu naaru jahannama xaalidan fiha ku mooy yàlla mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooki sawaraw jahannama moo koy ñeel te ko xam ne wa man yaasi laaha wa rasulahu fa innahu la yadur illa nafsahu koo xam ne dangaa mooy yàlla mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow loroo kenn kudul sa bopp loroo kenn kudul sa bopp comme ni nga xamee ne noonu la ko alquran waxee ndax mooy yàlla ak mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sawara moo lay ñeel ëllëg te loolu ak tooñ sa bopp mënu ko paase te bokk na jëlee na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom wax ne kullu ummati yadxuluna aljanna illa man aba ku mën a doon ci sama xeet wi rek dana tàbbi aljana ba mu des ki nga xam ne moo bañ ñu laaj ko an yow yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana kan mooy bañ dem aljana mu ne ana kan mooy ki bañ mu ne képp koo xam ne topp na ma kooku dana dugg aljana waaye képp koo xam ne bañ na maa topp kooku mooy ki bañ kon loolu itam dana wax ne jigéen ji génnati génnewu génn génneen wu lislaam gërëmuwut kookee day dugg ci tabarruj tabarruj mooy yàlla la te mooy yàlla mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li mu digle nga bañ koo def kooku nag su boobaa yow da ngaa bañ a dugg aljanna loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne kullu ummati yadxulul jannata ban ko laaje kan mooy ki bañ mooy mu ne ki nga xam ne moo bañ a topp li ma digle kooke mooy ki bañ a dugg aljanna kon xam naa sunu émission tey duñ koy taxawal foofu incha allah bu ñu dikkaatee ci beneen jataay gën a waat ci yeneen tomb yi nga xam ne moo aju ci walu tabarraj kon daal duumi alal xumuuli wa tasaturi wal tux fi de saw wal tux fi de saw tekki dëhëran tushkari kon euh, Sëriñ Tuubaa dénkoon na soxna Penda Jóob ne ko del sax ci na buutu waaye del toog sa kër waaye nag del suufal sa kàddu kon jigéen ñépp nag ñoo bokk ndénkaane boobu insha allah taala ñaan suñu borom subhanahu wa taala defal na tawfiq saahiran wa batin ci ma seexna al xadim amma bu xaqin al faruq sayyiduna fa fi masayaahu la yartabu tayyaaru وهو المتم ضوي الإسلام يوم عدا